Monseigneur Paul Abel Mamba demee Tambacounda mo Pape François nag bu mu falee tey Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga nonce apostolique waa moom mu ngi rafetlu nomination bi di nuyu Pape François mi nga xamante ne moo nekk kilifoom te moo ko jox liggéey bi tey nee na moo xam ne liggéey bi yombul ndax diocèse Ziguinchor nekk na diocèse bu rëy tamit ku wax sol mënuloo ba a wax situation de guerre en Casamance bu nekk fii waaye nee na moom xam na ni yàlla dina ko may doole te mu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw boole ak moom ndax liggéey bi mun a dem ci kanam mu ngi ñaan labe yi ñaan képp kilifa diine ak képp kilifa ak ku nekk nga def sa kent lay kattan ndax liggéey mu gën a rafet ndax waa Sénégal tamit nekk jàmm surtout waa région des Ziguinchor